ñu leen dugal ca kasu ba te nag am sax ñu génn leen assemblée nationale maanaam radiation ah dafa daal di ñu teg leen loxo ñoo ngi leen di wër ba léegi gisaguñu leen te lu garaaw la bu ñu sukkandikoo ci xëlim ak Samba maître Boubacar Cissé mi xam ne avocat Ami la moom daal nay déposé ab plainte niki démb ci taabalu procureur yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Ligue sénégalaise des droits humains ñoom tim ñaawlu nañ bu baax a baax maanaam <laughs> ñoom tim ñaawlu nañ bu baax a baax maanaam kàddu yi nga xam ne Ami Ndiaye ñii bi yëkkati na ko yéen kaay gii dalaysé ko nee na ñii nga xam ne ñooy waa waaye ba léegi France dali xëddee na yéen gii di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa professeur Djibi Diakhaté moom nag nee lii nga xam ne moo xew assemblée nationale li ko waral mooy manque d'autorité maanaam kilifteef ci boppam moo amul assemblée nationale te ki nga xam ne moom la jiital maanaam dafa ci li nga xam ne moo waral li am assemblée nationale la yéen a kaay gi la Réveil quotidien nee na ñaari député yi nga xam ne moom la wax ne ñoo ngi leen di wër ñoom tim déposé nañu ab jëmale ko ci Amy Ndiaye yéen a kaay gi ñii nga xam ne ñooy ñaari député yi bokk ci PUR ci coalition Yewwi Askan Wi di Massata Samb ak Mamadou Nianga maanaam ñoo nga làqatoo ca kër Serigne Moustapha Sy loolee moo tax gars yi ba léegi tegaguñu leen loxo yéen a kaay gi di source xëy dañu xibaar naan ñu Massata lu ngeen ci xamul karatéka la Massata Samb karatéka la waaye tamit éleveur bu mag la la lay yar yéen a kaay gi di 24 heures nee ministre bi ñu dénk wàllum transport bi ci jaww ji dem beeg dikk bi transport aérien di Doudou Ka démb moo demoon ci assemblée nationale waaye lu ko Guy Marius Sagna waxul daf ko fàtte Guy Marius Sagna nee na ko Doudou Ka directeur yi nga xam ne ñooy sàcc alalu réew ba pare nag di saaga askanu Sénégal Guy Marius Sagna nee na yow Doudou Ka nomination bii nga xam ne moom la ñu la def baaxul ci réew mi Guy Marius Sagna démb ci assemblée nationale nee ko yow Doudou Ka lan moo tax ngay jëfandikoo alalu alalu réew mi maanaam fay ay nervi li am ba de sal Guy Marius Sagna wax na lu leer ni ki démb ki nga xam ne mooy Doudou Ka ko yéen directeurs yi ak yéen ministres ay sàcc ngeen yéen i kaay di fas papale nee ñi nga xam ne ñooy taximaan yi jamono ji mer nañ ba maara day tale mën lay gis nga taximaan yi mer nañu lool loola ndax nag nee nañu dafa bëri ñoo xam ne ñoo ngi def transporté wuruñu ko defa ndax ñoom taximaan yi ci vox populi nee ñi nga la ñuy wooye ay kalandoo ñoo ñee tamit waru ñoo def transport ñoom taximaan yi jamono ji nee nañu sonn nañ tay nañ damm nañ dee nañu yéene kaay gi di réew ko di cee xëy diñu ñu Pape Alé Niang jamono ji maanaam wàllum wér gi yaramam jamono ji ki nga xam ne na mooy soxna Pape Alé Niang ginnaaw bi mu ko seetee sa kasu bu sibi xudaana ba mu génnee nag wax na leer nee kii nga xam ne mooy Pape Alé Niang di sama borom kër jamono ji sonn na wàllum wér gi yaramam doy na waar te nag Pape Alé Niang jamono ji ma ngi ci gerawu xiifal dana jàkkaarloo nag ak doyen de juge maanaam maanaam ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la ngir nag ñu daal di koy mën a déglu ci àqóota la moom journaliste d'investigation bi yéen kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko moom ak xale jigéen bii di Adji Sarr tey jii danañu amal confrontation ci nag bureau doyen des juges Maham Diallo yéen kaay gi de l'Observateur ak Quotidien ak La Tribune Adji Sarr nee na ji pare na ngir jàmmarloo ak Ousmane Sonko yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na en tout cas li am ba desal mbiri Adji ak Ousmane Sonko mënuñu leen a ñàkk déglu bu ñu bëggee mbir mi leeral te nag ñii ay témoin kele lañ yoo xam ne dañu leen a fàtte ci mbir mi te nag doyen de juge moo leen fàtte te waru leen fàtte damay nettali du samay kàddu quotidien yor yor moo xëy di ñu ko xibaar nee na kii nga xam ne mooy Mamour Diallo bu ñu bëggee mbir mi leer danañu ko dégloo waaye kii nga xam ne mooy maître Pape Samba Sow ñu naan ko Gabi bu ñu bëggee mbir mi leer danañu ko dégloo waaye kii nga xam ne mooy maître Dior Diagne danañu ko déglu bu ñu bëggee mbir mi leer waaye kii nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye danañu ko déglu bu ñu bëggee mbir mi leer waaye